jërë ngeen jëf mbokku internetu Actubuzz ginnaaw bi leen nuyoo ñu wax ak yéen ci euh, benn fee bu doy waar bu amee fële ca Grand Yoff foofu nag euh, benn waay nekk jaaykatu téléphone ay atam tollu ci 25 ans moo daan rek jël euh, copinam bi nga xam ne dafa am 16 ans daan ko yóbbu ci benn góoru tubaab bu am 53 ans ngir mu fay jaay boppam ci noonu ci lañ ko daan fayee 50 000 francs moom xale bu góor bi moo daan. jël xaalis boobu noonu mu mel ni moom xale bu góor boobu noonu paw tubaab boobu am 53 ans yi da nekk fii ci Sénégal di fi représenté euh, benn société euh, dëkkam boo xam ne moo féetee fii ci suñu réew muy société commercial te pa bi moom mu nga jógee fële ci France borom 53 ans yi dafa daan rek woo xale bu góor bi ngir mu koy indil sax ay euh, xale yoo xam ne ay mineur lañ seen ay at tolloogul ci 18 ans des fois mu ko ci laaj ñaar ba ñett ngir di mën a sekkandoo ak ñoom ñëpp loolu la euh, enquête bi daal di euh, révélé moom nag ki nga xam ne mooy xale bu góor bi euh, doon la fa yóbbu copinam bi am 16 ans ay yoon yoon ci noonu itam ñi nga xam ne ñoo nekk ay xaritu xale bu jigéen bi te bokk ak moom classe ñoo dem rek daal di dénoncé ku góor ki foofu noonu nga xam ne moo nekk ci kanamu yaayu xale bu jigéen bi ci noonu moom tamit ci la demee fële ca sûreté urbaine ngir daal di porter plainte bi mu porter plainte itam. Euh, ñooñu nga xam ne ñooy waa sûreté urbaine daal dinañuy tëggal pièce ki nga xam ne mooy xale bu góor bi euh, moom jaaykatu téléphone boobu daan def euh, ñaawteef fii daal di rek nekk pièce bi ñu ko tegal mooy ne benn daam daf ko woo pour jox ko rendez foofu ca plage bu Ngor daal di koy wax rek ne mën na koo fay cinquante mille francs pour mën a sekk ak moom moom ku góor kooku noonu ci noonu itam si la daal di accepté bi mu demee foofu ca plage ba. ci la ko policier yi daal di wër daal di koy jàpp en flagrant euh, délit moom xale bu góor ba ba jamono yi ñuy waxee ak yéen mu nga fële euh, ca parquet ñu daal di teg ngir mën a ameel enquête bi. biñ ko yóbboo foofu itam moom euh, ci premièrement bi dafa doon jéem a rek bañ li nga xamante ni nii moom lañ koy toppee yëpp waaye nangu na ni daana dem kër tubaab boobu noonu féetee ci Nord Foire daana fa yóbbu itam ki nga xamante ni nii mooy gëlëm bi wax na fa sax ne moom tubaab boobu moo ko daan sax fay xaalis ngir mu ko daan utal ay xale waaye yeneen yiñ koy toppee dara amu ci waaye mu mel ni waxam yooyu noonu euh, téléphone portable am bi daf ko trahir ndaxte enquêteurs yi lañu ca gis rek mooy ni moom sax am na benn compte Facebook boo xam ne euh, photo ndaw si jigéen ci la ca def mooy gëléem boobu am 16 ans euh, te foofu dafa bind rek ne ab transsexuel la maanaam ku góor la woon euh, bi muy judd waaye dafa après ci la nekkee jigéen pour di fa mën a am li nga xamante ni mooy ay xaritu lesbienne yoo xam ne dina mën di am ak ñoom relation ba tey ci biir téléphone am ba. gis nañ ci benn groupe bu xale yoo xamante ne ni kenn amagu ci 18 ans maanaam ñëpp ay euh, mineur lañ jamono yi ñuy waxee ak yéen nag muy tubaab ba muy moom ñoom ñaan ñëpp daal dinañ leen di yóbbu au parquet euh, mardi bi ñu génn euh, ngir rek daal leen fay tegandi en attendant ñuy amal yi nga xamante ni mooy seen jugement lañ leen di toppee nag bokk na ci. usurpation d'identité ak li nga xam ne mooy détournement de mineur ak yu ni mel abu fi nii faa man dama tiit <laughs> ah kon loolu mu ngi xew ci réew mi mel nii Grand Yoff la amee nekk na loo xamante ne nag ah lu méttee métti la te diis ah laa ilaha illallah ay Sénégal waaye ñun fu ñu jëm suñu réew mi lépp lu ko waral nag mooy maanaam ñàkk rek mooy indi lii lépp rek mais loolu wét gore wéttali ko gore nit ak nu mu la demee ci àdduna la nga ànd ak sa ngor ko waa ji def na lu ñaaw jël li nga xamante ne ni lu mel ne koo xamante ne sa deret la sax sa mbokk nga di ko jaay ab tubaab ah, ci ay njëgu cinquante mille ak yeneen ak yeneen xale yoo xamante ne ay xale yu ndaw mesure guñu ñi dañuy yàq population dañuy yàq peuple dañuy yàq maanaam réew bu ñu duggee ci xale yu ndaw yi mel nii ñu ci mel ne nga xamante amuñu bopp dañ ciy dugg rek ci mbir mi def ko liggéey dañ ciy faral dañuy dem ba mujj yi yàq xelu xale yi dañuy obligé xale yi léegi di jaay seen bopp moo tax léegi parents yi bari du ñu wóolu sax seen doom yi ak ñu yor téléphone wala du ñu wóolu seen doom yi pour ñu dem ci école ba di jàngi mooy waral ñu teg seen doom yenn pression yi parce que yi mel nii muy daal di xew ci ki ki la koy def ca biir kër la dëkk nekk koo xamante ne sa sa mbokk la wala sa famille la kooku waroon na am beneen euh, xalaat ak beneen loo xamante ne mu ngi koy jëfloo li nga xamante ne mooy euh, rakkam bu jigéen boobu ah mu def loo ko lu ñaaw daal parce que maanaam rakkam bu jigéen a wooyee parce que ay ay diggante copine sœur rek waaye euh, entre kii yooyu yëpp ay ay ay ay ay affaire de famille rek. yaa ngi comprendre loolu mu def daal nekk na fa loo xamante ne lu ñaaw a ñaaw te fi mu xewee mooy Grand Yoff di dañ ko dégg ci yeneen réew yi mu nekk loo xamante ne lu kiitaange la woon mais tey ñu koy dégg ci réew mi Sénégal xale bu góor bi xamul tubaab bi ndax am na feebar amul feebar. xamu ci dara xale yi ah ay xale yu ndaw nga indi di leen boole koo xamante ne mun na leen jur tey muy sëkk xale yooyu dem ba di di leen divertir wala di leen gaañ di yàq yi ndax ay ay cinquante mille francs yi ñu lay yi ñu yi ñu neexal ak yeneen ak yeneen nekk na daal lu ñaaw en tout cas lu si war a mooy am daal na ci yoon def liggéeyam nañ ko teg daal ay daan daal moom waa ji parce que def na daal loo xamante ne daal ay euh, kii fa lu lu salte daal la def. mooy noonu abu comme ni nga ko expliqué euh, mu nekk fee bu doy waar franchement euh, nekk loo xamante ni euh, rafetul sax ci deru Sénégal. Mm-hmm. parce que day tax rek ñi nga xam ne ñoo nekk ressortissant yi jugee ci yeneen réew yi. di mm-hmm. ñëw mm-hmm. day yàq image yu Sénégal parce que à chaque fois dañuy wax rek ne bu ñu fi ñëwee yooyu day nekk loo xamante ni daf leen di yomb waaye abu xale bu góor bi dañoo wax ne jaaykatu téléphone la alors et nekkul ne xale bu jigéen bii rek. la ko doon def parce que groupe whatsapp bi ñu gis ci téléphone am wane na ni euh, moom liy métier la ko daal di def mhm. alors mu ngi doon jël ay xale mineur di leen jaay sans pour autant seen parent yi mhm. yëg ko mu nekk ay responsabilité partage parce que parent yi am nañ ci wàll waaye moom mi nga xamante ni mooy def ñaaw tiif bi moom mhm. li mu def ñaaw na kenn mënu koo qualifié waaye nan nga gisee euh, li ko war a poussé pour mu war a def lii métier bu fekkee ni moom jaaykatu téléphone la am na métier moo ko war a pousser rek ci ci ci mbir mu mbir mu ñaaw bi nga xamante ni mu ngi ko doon def. waaw li ko ci pousser du leen fa nit ku bon ku bon rek lay doon nit mënoo bon bon bon ba xëy ni da ngay baax nit mënoo xëy di baax di baax ba xëy ni dangay bon waa ji nit ku li mu def yëf mu bon te la yëf ñaaw téef la. beneen bi groupe yor groupe whatsapp boo xamante ne xawma sa groupe facebook boo xamante ne ni dafa dajale ay jigéen yi jaay seen bopp loolu la ñàkk jom weesu loolu ci ponkalum góor mu war a daani doole te bu te bu fekkee amoo liggéey sax ñu mais am nga sa liggéey yaa ngi daan sa doole yor sa liggéey di jaay say téléphone di si suturlu di si dàq sa wërsëg loolu di bis boo xee euh, bis boo gisee euh, fa am na am na na un million dama am un million day tax nga dugg si naka sudul noonu deuxième bi xale bu xale yi jigéen ñi am nañ ci responsabilité moom xale bu góor am nañ ci responsabilité xale jigéen responsabilité bi ñu ci am mooy lan fii fii at fii Sénégal lañ nekk pays droit la fii kenn du fi def loo nit lu la neexut kenn du fi forcé nit lu ko neexut dëgg la nag def na erreur xale bu góor bi mais xale jigéen tamit nag ku ji njaag ñoom yi njaag tamit de soo ma proposé lu ma munut dama lay wax munuma li te du ma ko def te boo ma proposé te yóbbu ci yoon boobaa du ko waxaat yow mi tey fa tey sa dignité yaa ko gaaral sa bopp yaa ngi comprendre tey bu leen proposé tey loo xamul tey loo munut bu nga taxaw jàkkaaroo nga ko bu ma ko waxati mais xale jigéen ñi fëkk bëgg dërëm bëgg nañ solu bëgg nañ téléphone bu seer moo waral lépp lu ñu defal ci aduñ daal koy defloo nekkan lu ñaaw loo xamante fi lu ma ko yàlla na ko yàlla soppi jikkoom daal yoon nag na def liggéeyam atte leen teg leen ci yoon jërëjëf Abou moo ngi noonu analyse bi am na solo ñuy xaar itam résultat yi nga xam ne moo nekk enquête bi fan lay mujjee mbokk internet yi leen jox rendez-vous euh, beneen yoon incha allah.